mbokki Sénégal déglu leen le 11 novembre bés bu mag ci arène nationale Mousnakh production la ñu ciy àndal mu ne première édition drapeau Madiop Diop maire bu Grand Yoff Mousnakh ne damay dem jëli serpent noir bu écurie Dóor koy jox nag ki nga xamante ne ni moom mooy doomu jàmbur écurie Jimbori combat spécial li mu ne damay dem jëli ji amul frein bu kër Mbay Fall daal di koy ak Mayakor bu écurie Grand Yoff mbooloo drapeau Angel Fall responsable politique jël dem dina fa jàkkaarloo ak sàqal mbokk yi drapeau Khadim Sam nee ko bu Cambérène ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak sombi drapeau Thomas mbokk yi ak yeneen six combats préliminaires yu neex a neex a neex ci bés bi ñu ànd ci ak Mousnakh production du xam ngeen ko ay ndaanaan kese lañu bu ñu ñëwee rek làmb ji neex Thank you. Pokola ngi nii cumukaayu Pokola ngi kaay jege si ma baa ngi nii ñii ñooy cerveau yi nee naa la ñii ñooy cerveau yi Pape Sarr le monument de Pikine ànd ak ànd ak bu la joxee ndigal di nga wax. non tey amul wax. Pape bu la joxee ndigal di nga wax. ay Boucar sama doomu ndey. ci loo ne maa ngi nii rek maa ngi lay ziar. Pape dafa mel da nga tiit tey. non man du. combat gis nga tiit mais tey daal Pape da nga tiit. ma tiit. li may mooy du ma ko seetaan daal. du musuma seetaan combat Pokola. parce que du ñu tiit. wóor na yàlla suñu ñaari frère ñooy bëre. muy gàkku de muy xale bu yaru. mais tey nu ñu war a ëmbee Pokola. ëmbee nañ ko. am na ñu bëri ñu ne Pokola dafa umpale Gackou 2 parce que na si mbër yi gën a naqaree bëral Diaz. non Gackou 2 moo umpale Pokola. Pokola moom man xam naa ko fekk na ma fu ne ci mbapat yi. non dama ne la daa am lu mu def fii ci làmb moom mooy seul espoir bu nga bëre daaw trois grands combats yëpp da koo mu dégg mu xeex bëre daan Gackou 2 ndaanaan la dégg nga adversaire bu sérieux la ñu am. du dëgg mais ñu ngi ñaan rek yàlla may ñu ndam waaw. sa dal na si Pokola. billaahi bëre bu yàgg bi ñu bi ñu siy tiit. ah bëre bu yàgg bi gars yi di tiital. gàkku ñu bëre 100 minutes. loolu. Ah. waaw doo leen bàyyi. déedéet. gàkku doon ne combat bi mu gaaw wala mu yéex si moom la dépendre. amul benn problème nañu xaar rek ñu ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla suturaal tey. waxal ak Pathé rek. ñaari mots. du ma wax la 5 laay wax. mais le 5 yegg laay wax. bi foo leen ci toll. waaw yàlla na yàlla yàlla na sutura yàlla na yàlla ànd ak ñun rek voilà cinq. demoon nga Guinée. bo man du ma dem Guinée damay toog lépp di ko def waaw. yàlla gëj nga gàncax gëj dem de. dama fay dem. secteur du diya bi. waaw ñëw mbéyam gi. wal jaxal jookul. ñëw xam nga jookul. waaw ay wal ay jookul. Boy Grand Yoff yow sama waay wala lay bëgg nañu bu baax delloo ana bébé sëy sëy ngi nii ndaamale victoire bi ana sax laa ko may benn rakam bu nekk Bordeaux bi jàng waa moom laa may victoire bi bilaay di bégga waa Grand Yoff gi yëpp waa zone 7 Grand aw ma seen fay autorité yëpp si jàpp ñëpp ñëpp man vidéo bi bugguma sànq dagal dama bugg nga génneel ma ko Angel Fall da ci jàpp bu baax Aline Badara Kebe ma Diop Diop ñoom Ama Ndiaye di nuyu sama benn grand muy grand Mbaye ñoom ñëpp dañoo jàpp si combat ak Ousmane Sarr ñoom ñëpp dañuy Ous sama waay la le pro. Ousmane Sarr waaw pro Kébé pro Kébé da cee jàpp pro Kébé jàpp na ci bu baax. mais mardi da nga ñëw fekk. waaw waaw mardi. comme ça ñu yeggali waaw amul ragal waaw. ayca la demee eh bébé sey bëggee bëggee ayca naar Tony Signor. Bougar borom borom kër mbir. waaw borom kër mbir borom tund jëndër. mais ci loo ne. waaw ñuy bu baax a baax a baax. nama naa la de. waaw ñu si kawam ñoo la raw bu ba ba baax. ñu la raw tey da ba xam. mais ba léegi sa combat taxawul. waaw ba tey gis nga am na combat yu ñu dox Tony Junior xam nga tonnerre ñu si doon wax promoteur bi sori woon. mais grand combat bi am nga ci am waaw man nag Gris 2 laa bëgg a bëre. non moom daal di. dama yi ñemewuñu ma. na ma may chance ma jël. Gris 2 day diis. non du diis na ma may chance ngeen xam ngeen xam daanaanu Tony Junior parce que booy yi ñemewuñu ñu doon wax suñ combat ak mais gis nga ay wax yu si dugg dem na ba moom d' accord na ñu demaat ba dégg ñun bu gar mujj jël gaal gi dem koo xam naa. man ah dañu mujj a gaal gi dem de ni ñëpp ni ñëpp ni man maa ngi waaj ku béréwul dem mais man li ma jaaxal borom daaru pokola la andi loolu ma gën a jaaxal ci mbër mi loolu ma jaaxal ci mbir mi borom daaru waa waaw naka yitee maa ngi lay ziar waaw delloo la borom daaru pokola nga andi waaw pokola laa indi waaw pokola nan ngeen ñëwee waaw bu baax waaññan bu te am nañ si yaakaar te suñu borom dinañu may ndam si kàttanu yàlla waaw waaññan bu baa a baax daaru tey nag defi nga relevé de defi nga bëgg a relevé sax laay wax. tey da ngaa bëgg a relevé defi daa mel ni. waaw non xam man moom stade bi moom yàgg naa fee wane. xam nga mais lu tax ma ndamu wala ma bàkku wala ma def dara. lépp dama koy jox suñu borom rek. mais ñu ñu bëri bu ñu la gisee côté Pikine dinañ leen jaaxal parce que géejawaay nga dëkkee su ma juumul. non man Pokola dafa féetee ak man. loolu ku ma siy mere baye bu amul problème. sama doom la sama rak la sama lépp la. moo lu bëri la nga moo jox boppam. la kii mooy fils moo fi bëre démb li ñu naan bëre na daanu na mais nag dañ leen naan félicitation ne la gàcce ngalaama maa ngi lay bëggee. delloo bëggee bu baaxa a baax a baax soxna. démb nga bëre combat bu rëy. waaw démb ñu ñëw bëre xam nga ñëw bëre def lu ñu waroon def yëpp. yàlla dogal nga ñàkk. waaw yàlla dogal ñu ñàkk ñu koy sant yàlla bu baax a baax baax. Ah. bi nga ñibbee ba seetaanaat combat bi yan erreur nga jàpp ne moom nga def. waaw def naa ay presque erreur rek laa bëre si làmb waa amul benn yoon boo xam ne xam nga def naa li nga xamante ne moom la ay erreur rek laa def ci làmb ji ba ma yeggee suñu kër xam naa ne carrément li ma bëreeg moom waruma ko woon bëreeg moom donte maa ko mën sax mais waroon naa ko jox cër bëreeg moom correctement ba yàlla suñu borom defal ma si ndam mais dama ñëw bëreeg moom bëre maa la mën bëreeg moom bëre xale mais yàlla suñu borom tamit démb moo ànd ak moom rek waaw. maa ngi lay bëggee. jaajëf waay. nu mu demee. naa la. taw bi. temps yii nag temps waay yéen a ngi neex waaw guddi guddi Guédiawaye la. ndam rek. tey nan nga ñëwee mu ndaw moo mujj fii. après gàqu de. nan ngeen andee gàqu de. gàqu comme ko fii de Balla indee ko sama bopp moom la ñu indee gàqu de ah. waaw. sa xel dal na si bu baax a baax. Ah. gën naa dalaat. xam ngeen koy war a bëreel Pokola. Pokola neexul affaire de. sóoraale wuñu ko sax. Ah. Pokola neexul affaire de. kii mooy père kii mooy Pape Mama l'homme social de Guédiawaye mbër bu ca géejawaay ne maa ngi gërëm Pape Mama loolu yaakaar naa c'est à magnifier parce que loolu aussi dafa nekkul lu yomb quoi nee nañ mën na évaluer nit lu ne ba mu des baax kon Pep euh, Pape Mama suñu grand suñu père ñoo ngi lay ziar. waaw yàlla yàlla na ko ziar ñu ngi leen tey nga ñëwaat taxawuwaat beneen doomu géejawaay bu war a bëri muy gàkku dóor. waaw loolu c'est normal loolu c'est normal comme ni mu koy waxee chaque jour rek jaamu yàlla moo ngi si bëgg sa gox te ñun géejawaay la da ngay jóg pour jàppale ko lan moo lay motiver si di dimbale booy yi. waaw mais loolu moo ñu war rek ñun géejawaay la ñu am. waaw lépp suñu lépp géejawaay la waaw. doo doo homme bu la neexoon tey sa alal nga yemale ko yow ak say mbokk mais dañu gis ne vraiment booy bu jóg rek wala booy boo jël interview mu sant la gërëm la te aussi vraiment c'est à magnifier. waaw xale yi ñoom ñoo ma jox cër jox ma lu moom moo tax dama leen delloo lu ñu <laughs> loolu rek la waaye du la leen. yàlla sa jàmm yàgg waaw jaajëf. di def ay 100 di def ay va et vient ànd ak Fils de Balla eh loolu du mën a yomb de gàkku doo di def ay aller retour ànd ak Fils de Balla ànd ak waa écurie Guédiawaye yëpp ay sa ziar code su roon code su ziar naa la. mais maa lay fay bugar. dafa mel ni waa Guédiawaye yëpp a booloo ñëw bootu si ginnaaw gàkku doo. waaw xam nga lamb fi mu toll léegi. làmb léegi daanaka gox la te mu nekk suma doom nekk suma jarwaat nekk suma lépp kon ñu nekk dañu nekk tollu géewaay boo xam ni écrit buy bëri rek war na mën def war nañu def suñu suñu présence xam nga a naa ko baax a baax dafa dëgër bopp de non mbër lay bëreel mais nag naa leen de ah. booy bi c'est un champion daal dafal jàmm ah. non booy bi non bëre rek lay def saxel dal macha allah macha allah yàlla la xeb dolli kokoy kot suroon yow amal jàmm sa jàmm yàgg mais talfa ngi nii gémeur bi maa lay bëggee. delloo bëggee. yëg-yëg lan la. waaw sant rek. tey nga andi sa doom ndey muy ñang baalo. waaw sama mag la sama lépp la sama deret la ñoo bokk lépp. mais am na combat de. waaw yow combat boo jëlee. booy bu kër Mbaye Fall. dégg nga boo jëlee xale bu ndaw sa combat nga. ku nekk ñoojoor bi. ah ñun ko nekk Cambérène lan. loolu ak Mbawar ak Waalo. Ah, waaw sa xel dal na. yàgg na si loo ne. kii mooy ñang maa ngi nii di xaar. gaay yi lu ñu bëgg dañoo bëgg ma bàyyi. mais grand combat bi. waaw sëñ Fallou man maa ngi pour ñëpp. grand combat bi ma bàyyi adversaire làmb ji aw ma gaañ ku ñëw ñu bëre. maa ngi lay bëgg waaw jaay. daanu baa am. Ama bu Malika caatu Puyol. eh xeex daw na ko songu na ko daw na ndaje da koy yéen wala caxabal dina ko daan daan na ko. Ama bu Malika daan na caatu bi. Ama bu Malika daan na caatu Puyol. oh mbagg ba mbagg ba wekkee ko waat na. jàpp leen si mbagg ba wekkee ko waat na. oh ba. delloo neen la siyaat mel ni kontaan waa waaw bëgg nañu loolu dëgg bëgg nañu loolu. yee Ama dama ko jël keroog. Ah. mu ne dafa bëgg am lu mu wone moo tax mu jël caatu peel waaye du yoonu la ma gis nga Ama ñun waa école de li boy sa yëpp dañuy rey sunu bopp si moo xam lu tax ñun xanaa xamoo mbër bu joge si écurie ñëw si écurie moom lañ gën a fonk mbër bi nga xam ne moo nekk suñu écurie parce que li ma gis boo ñëw suñu écurie yaakaar boobu la ñuy bañ a tas moo tax Ama bu amee combat ah. entraîneur bi da siy rey boppam man dama siy rey sama bopp te incha allah am nañ si moom yaakaar am na yoon bu ñu jaar la te xoolal dina réussir incha allah barki maam Thierno. maa ngi lay bëggee billaahi. waa frère naa la. fier si yow. waaw billaahi maa gën a. di la ñaanal ak gudd fan ak tamit pareil barki maam Serap. xam boo guddee fan am wér. incha allah. fépp foo bëgg a dem di nga fa ah. nit ku dëggu. yow grand kenn du nit ku dëggu. <laughs> waaw xam nga ñun loolu suñu papa la ndaxte nit ki nu mu mel rek xam nañ ne mun nañoo ne si yaru baay ja la ñun sam papa nekk ba ni muy musu fee woon a caaxaan musu fee woon a ñàkk fayda musu ko yeb kenn musu ko yeb doomu aadama say parole da nga kaa war ko waa parce que mooy tax nga moo tax nit ñi la xaw ma kan mais Boucar yow sa bës sama bës la barki Seydina Mouhamed parce que bu dul dara sax conseil rek dafa doy waxuma laa jàppale bi. yàlla na seen jàmm yàgg. ana père ngi am bu am tan lii yàlla na dem bay doon télé si barke Seydina wax. ñu bokk te léegi rek incha ba États-Unis barke Alxuraan. non tiit fan. lan la ndam rek bu soobee yàlla. lu xew a bëre. nañ ko waaw. Kër Mbaye Fall. amul problème. doomu ñoo doomu Cambérène bàyyi na daa dëgër daa ñoo gën a wow la. noona le Baye Fall de Cambérène waaye ay combat bi mu am tey wala adversaire bi mu war a bëreel ñaa nga bëgg naa la. barki Serigne Touba maa lay ziar maa lay ziare. nga. di la sawdaat. barki maam Seram. sàkk si yow ñaan. waaw yow laay ñaanal yow la. mais mais non non pare. waaw mais mooy loolu ñoo ngi ñoo ngi ñëw ànd ak suñuy mbokk ànd ak waa Cambérène parcelle. waaw di ñaan yàlla may nu ndam. xam nga ki nga war a bëri. xam naa ko bu baax. ñang est-ce que xam nga ki nga war a bëreel. am naa ko bu baax. Ibou la rek waaw. daa dëgër bopp daa dëgër bopp waaw. yow mooy loolu. à suivre ay tarnaal. ñu delloo siyaar. kalaaf bi. waaw alhamdulilah. pare ngeen. non pare nañ bi pare nañ du ci dugg. gërëm doo pare na. pare na incha allah. tirage moo des de. waaw incha allah ku ñëw baax na. Doudou Sané jël naa ko fi démb. ku ñëw dégg gis naa ko seetaan naa ko dégg naa. nga li mu wax. non boo déggee waxam. waaw bàyyi na xel booy bi. waaye nag. ni mu wax ku la ku la njëkk si néeg bu la ndëm. waaw mu la wax nu fay jaar mu lay wax fi ngay. ah yàlla baax na. ah Sibir. ok kii mooy Bada. ñu naan ko Modou Lo Senior. ancien gloire la nag. bàyyil di ma nax. non yow doom nekk damaa mën dese sama gàll bi xam naa nag dama la war a wax loxo mais dama ko fàtte billaay. yàlla ko yàlla yërëm. amiin waay. mais si loo ne. waaw maa ngi nii rek. tey ay gone parcelle du bëre. waaw ñëw gunge si leen rek. ñaanal leen ndam rek. gis nañ caatu peel waa di ko xam ne làmb noonu la. ñaari xale lañ. dañ doon wuti kii yàlla may na ko ndam moom yàlla beneen combat yal na ko yàlla may ndam. maa ngi lay bëggee. dellu bëggee waaw maa ngi ziar bu baax ziar naa dellu ziar bu baax. coach nan ngeen ñëwee. waaw ñëw nag ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sonante bi. entraîné nañ suñu poulain wax dëgg yàlla ànd ak moom ci combat bi di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam. waaw mu nekk koo xamante ne ku ñeme entraînement la ku bëgg li muy def la ku respecté li muy def la. xam ngeen ki mu war a bëreel. waaw xam nañ ki mu war a bëreel Ibou Boucar Mbaye Fall lay bëreel. waaw mais lool moom wax dëgg yàlla amuñ waaw waaw waaw mais tey mi ngi daje koo xamante ne moom peut-être que moo gën a dëgër bopp ci làmb. à suivre yaa suivre. maa ngi lay ziare. maa ngi lay xame. waaw tey gis nga xanaa. lii nga déclaré. waaye petit loolu laa indi ay ñaan ñaan yàlla yàlla ko may ko ndax barke Cheikh Fall xam nga ki naa ko. dëgër bopp waaw mais amee da ko gën a dëgër bopp. ës. amee da ko gën a ës. Ah. barke Cheikh Fall. sa xel dal pour cent moo tax ma ñëw. mais nam naa la de. maa ngi raw barke Cheikh Fall. di a seet defal loolu. yàlla sa jàmm amiin yaaram maa ngi lay ziare. yaaram nan nan ngeen andee Petit Lo. waaw Petit Lo waaw sama doom sama xarit. waaw kii moom dañ koy ñaanal ndam. Ah. xale bu yaru la xale bu baax la. saxal daan la si moom. non day daan bu soobee yàlla. xam ngeen Jackson. non mais mbër moom bu liggéeyati kee lu mu indi indi liggéey ngay indi rek yow. Ah. teg ci yoon. le 5 pare ngeen. le 5 pare daggal du ci wax. le 5 pare ngeen. du ma ci wax daggal. dagal loolu waa du ma ci wax. Pape gis naa ko fi de. du ma ci wax du ma ci wax. waaye bien rek du ci wax du ma ci wax. man ñeeloon di dal wallaay du ma wax. à suivre. ay ja pati loo nga noona di waajal. pati loo nga noona. ànd ak ñoom Mbacke. ànd ak ñoom Faya. ma ngay dem. Faya bëgg naa la. delloo ziar naka waaw pare nañ bu baax. mais ce que pare ngeen. pare nañ bu baax bëre rek ngeen ki ngeen war a bëre. Jackson 2 waaw xam nañ ko dañ koy suivre nii rek. Ah. waaw. sa xel bu baax. loo leen andi. ndam. à suivre incha allah. bëgg daloo bëggee bu wagan. nga bëre. waaw mais ñu gis da nga jël sa da jël sa temps. kaayal nii waaw. ñu nga jël sa temps si combat bi quoi. waaw waaw combat bi dañoo dañoo yab rek waa Malika yab ñu comme li ma la waxoon fee man maa booy bi waruma fee waruma fee war dara lu ñàkk fayda waaw comme keroog waxoon naa la ko yow tamit di la sant di la ñaanal jàmm di la wax yàlla nga am télé yu bari bari bari barke yàlla borom baa nga ko waa waaw incha allah incha allah ajo ajo Boucar maa ngi merci beaucoup Boucar ñu gis booy bi ngeen ëmb ko waaw nee ma yéen a waaj combat yaakaar dafa foor dafa jóge si écurie ñëw dénk coach yi boppam coach su baara waaw kii suñu papa la quoi du suñu duñu suñu coach suñu papa la moo ñu débuté combat naan nga ama combat bi ñëpp ko yéene woon ndam dañ doon julli sax di ko ñaanal moo ñu gënal sax xam yaa ma gën a xam di ko ñaanal ndam li jikko quoi di sant kosu yi bu baax kosu baara kosu king Boucar di sant waa Kër Massar yëpp nag kosu baara waaw Boucar mel ni kontaan nga de waaw mais sant yàlla parce que ñu lii rek lañ ci am préparé mbër indi ko mu wane li mu liggéey ñun loolu lañ ci am parce que dinañ xam ni kon fa mu nekkoon liggéey nañu moom te bi nga ñëwee fee am na lu ñu jotoon wax Ah, bi mu ne na indaale kër su king ak kër su baara ne woon naa matu na moytu ma dóor ko ci mâchoire mu daanu ama moo ko xool mais bi mu ko dóoree ci mâchoire yi mu perdal da ko waroon laal rek mu daanu waaw non kaa woon sax mais il est intelligent nag daanu na mais ndaanaa la parce que bi mu jëlee coup bi loxoom sumeeku la déclaré mais mbagg sumeekul boobu dafa def nii ama di ko gëtt mu remise daw génn mais maa ngi nuyu Binette Couture Binette Couture may ñu ndam ku ñu xam-xam ni tey waaj te tey bëgg nañ làmb ji ñun nag ñemewuñu gàcce ki ñuy bëreel champion la def na lu ne ci làmb waaye tey dina daj lu metti ñu gis combat bi nga jox ko cër. waaw dama bàyyi dem États-Unis entraîné ñëwaat fii ñu tegaat ma lu metti ànd seeg sama doom nday bii nga xam ni. may jóob safara dañoo yàgg ma ak moom dund lu ne mu bëgg ma tey li ma takk nii yëpp moom la moom ak ngemb moo ma indi sama xarit la. di ko ñaanal yàlla moom combat yàlla may ko ndam ni may taxawoo kontaan naa trop amal ndam ba pare rek frère la diggante ku la non nice man moom ci dëgg ak ngor laay ànd ak gisee combat mbee ñëw ma fi préparé wul école parce que man du ma ànd ak ko parewul mais dafa ñëw écrit ba pare ma gis performance yi moom moo tax ma am sañ-sañu indi ko jël samay bagage jox na ko nañ dem da ngay bëri da allah. ñoom Fatick Jokal a ngi noonu doomu Sine baa ngi Jokal loo andi tey Jokal Jokal loo andi tey. lépp tawfeex. Ah. maa looy wax waa Sine. waaw waa Sine ñu ngi leen di wax tàllal suñu loxo rek ñu ñaanal ñu. mooy loolu noonu. Bousse xam nga ki nga war a bëri. xam naa ko nii rek de Boucar waaw. yaa la jël umpale la. baax na. mais loolu est-ce que waru nekk avantage si yow. kanam tuuti incha allah. wax waa Fatick. Fatick di leen ñaan di leen sama loxo ñu ñaanal ma. eh Bathie. waaw noonu la demee sa diggante Kéba. kooku sama papa la sama lépp la barke Serigne Bamba gis nañ ne muy neex muy naqari mu ngi taxaw waaw loolu dëgg billaahi surtout esa ama toll nii sax nga xam ne dafa naqari baay billaahi noonu la demee mais ma ko aco dina ko dégg tana ngi noonu ma ngay waaj ànd ak waa écurie-am ak am ama ko andi ama ngi noonu Jackson bëgg naa la eh, Boucar maa siyaar Jackson foo toll waaw pare naa instant yow dëgg yàlla waaw pare pare naa jël na jël naa jël naa ay coach sam jël naa ay nitam nee nañ ma pare nañ de. léegi mu leer incha allah yàggatul ah. waaw. pare nga. pare naa bu yàgg barke sëñ Babacar pare naa. léegi mu leer yàggatul. bëgg naa eh, waaw bi nga faal. maagal nañ la wér. booy bi fekkee ñee pare nañ ñun bañ paree du tay dañoo pare barki dem tay doog di ñëw petit loolu bëri doole lañ ko indil barki Serigne Saliou Mbacke. billaahi wallaahi. waaw ah, mais yow gaan. petit loolu petit loolu goxu mbër la. déggoo li ma la wax barke Serigne Touba Mbacke ñun fi ñu dëkk ay mbër kese moo fa dëkk xëy na lamb mooy loolu rek rëm maa lay siyaar nan ngeen ñëw waaw onze bila bisimilah ene wala yàllaaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaw ñëw nañu xam nga rek di ñaan yàlla yàlla may Jackson dam quoi moo may indi star bu moom du ma ñëw star quoi ay frère lañ maa moom lamb boolew ñu quoi moo maa nga ñaan su borom sukuraa ko defaroo ko ndam dëgg naa waaw taw bi ñang bala kor na ko di door de faxat woyale na ko war na ko ndombo Ibo war na ko ndombo penalty wu lamb Ibo war na ñang bala ndombo penalty wu lamb la bu rëccee seen mbokku la mbaa dina ci génn eh war ndombo ba dañ na ndombo ba dañ na da a yenu mu bañ xatar bi daanu na daanu na daanu na oh ñang baalo ñang baalo daan na bu Kër Mbaye Fall ñang bala nga noona di soutenir Boucher Ketchup pouleem doomu ndeyam loolu du mën a yomb ayca ambulance ziar naa la Bougar maa lay fay ambulance nan ngeen waaw comme dab di ñaan yàlla may ñu ndam rek comme dab mbaa wóor na waaw ah, waaw moo wóor jokkal nee pare na de ah ñoo ko gën a pare dañ leen da ngeen ko umpale non ñoo ko a pare ah. waaw ñoo ko gën a dal na alhamdulilah Boucar Ndour borom Géejawaay. jàppaan ci loolu. sant Serigne Touba bi. Géejawaay nag man fa laa bokk. waaw yow Géejawaay nga defee sa lépp nga defee sa enfant bi. la gars yi barki Serigne Touba Mbacke. ma rek yu bëri Géejawaay lañ ci. yow papay safara bi ñoo andi lang. waa tey di ñaan suñu borom ànd ñun may ñu ndam liggéey nañ. sa xel dal na. suñu xel dal na. yaa waaw suñu xel dal na baax a baax a baax. waaw Boucar ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun rek. à suivre yow à suivre waaw. xoolal xoolal ma mbooloo ma parcel 1 ba 26 ak li ko wër eh, xoolal ma li topp ñang baalo xoolal ma li topp ñang baalo xoolal ma li topp ñang baalo jagaan jagaan borom rok énergie Bougar maa ngi lay bëgge ci aar maagal tey eh, waa parcelle di bëre waaw am ngeen benn défaite ak benn victoire dañu ñëw di amaat ndam incha allah. mu des loo. dañu ñëw amaat ndam dimanche ñu amaat ndam. yow ci loo ne. maa ngi si jàmm maa ngi sant yàlla bu baax. ñoom naa la de. maa ngi nii. ana xaalis bi. mi ngi si yow. daa <laughs> am xaalis moo tax nga bàyyi bëre. <laughs> musuma bàyyi ci Boucar bàyyi li ngay wax lii moo tax promoteur yi ma maa ngi si làmb ji. waaw. mais Modou Lo Ama Baldé. di ñaan yàlla suturaal may ñu ndam. pare na côté yëpp. pare na ñoo gën a pare. côté yëpp yëpp yëpp. bu mu leer. loolu di yomb pare waaw. maa ngi allah. ay ca Petit Lo nga noona di waaj a dugg Petit Lo di waaj a dugg Petit Lo noonu di waajal di def les derniers préparatifs mbake Faye a ngi noonu Dame Sène a ngi noonu waaye faya a ngi noonu Faye borom ñoo joor moo ko ambaat andi ay ca fayaa ngi noonu moom ak petit. mais boole yi nga xamante ne moom la quartier yëpp di def géejawaay ay ko njëkk a def mobilisé wu mbër boom combat sax morom ñëw soutenir la jàppale la ñun loolu lañ xam mosoo gis ay mbëru géejawaay yëpp kenn ku nekk ba bis ñëpp leen taxaw soit que nga gis ko nga ñàkk koo gis parce que dara boo géejawaay la moo tax ñëpp la ñu yéen a jàmm ba maa ngi ñëpp am jàmm. du ko ñaaxaat rek di ko yokk di ko xamal ne nag mooy doomu Fallaye Balde di doomu Fodé Doussba di doomu Dubalees ay baayam lépp luñ doon woon ci làmb dañ koo jël wax jooju cax la ay baayam lépp luñ doon woon ci làmb ji ñun bañ ñëw dañ ko def kon maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may ndam ci barke du sallallahu alayhi wasallam bu sa ama mbër la champion la te ko xam naa la ne benn jour li ma foogul woon ci moom la laa gis ci moom ay mbër kaamil la yàlla na ko yàlla may ndam ama boo ko xamoo ko mais man xam naa ko yàlla na ko yàlla may ndam te xam naa li toll nañ ci làmb ji ba pare jaaduwul ñuy wax lii ak lee a ah, xam naa ne champion la ndaa naan kulli fal li yàlla na ko yàlla may ak Omar Bass doom day gàkku deux Omar maa ngi lay ziar delloo ziar sama waay loo doon wut si stade bi bii déret moo ma yëngal déret déret moo la yëngal déret moo sa diggante ak gàkku deux gàkku taaw man la ko tuddee loolu jeexal nay wax xam nga léegi li amul solo mais koo xamante ne taaw man la ko tuddee moom jeexal na wax loolu mooy déret kon bu amee bés da nga siy taxaw ah waaw loolu romb nañ loolu. gàkku maa moom ñooy fanaan ñooy yeewandoo waaw. xam nga ki ngeen war a bëri. ko kay. Pokola. Pokola waaw suñu. dëgër bopp. waaw yàlla baax na. dafa ës. gàkku ñu ës ñëpp moo leen daan. waaw ah, xoolal palmarès gàkku rek. dafa mel ni da nga jël Pokola à la légère. ah. mel ni da jël Pokola à la légère. non jël kenn à damay ñaan yàlla suñu borom ak li ma liggéey ma gëm yàlla suñu borom ni moom damay am ndam. maa ngi lay bëggee. yàlla ma bëggee sama gars yi ayca gàkku dong ngoog di waajal eh ànd ak doom dem Fils de Balla ayca gàkku dong ngoog di waajal nee nañ mbokku dee koy dur ayca doom day bëgg naa la. Fall ñooy char naka waare. nan ngeen ñëwee. waaw ñëw rek comme nu mbër rek. ànd ak suñu. frère Gackou 2 di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam defal ko waa Guèye waa yëpp. xel dal na ci moom képp ku fa yàlla na yàlla defal ndam non Gackou 2 ñun moom amuñu lu ñu koy wax ndax bu dee benn fan moo ñu ko jiitu si làmb ñun. te nanga na sport te xam na làmb te lu làmb laaj lépp moo ngi koy def kon nag ndam suñu borom moom moo ko yor ñun dañuy ñëw rek mottali comme suñ borom moo yor ndam yal na ko yàlla may ndam si barkeb Cheikh Ibra Jackson eh Petit Lo xeex daw nañ daje Petit Lo ak Jackson eh daw nañ daje Jackson Petit Lo jël na ko Petit Lo ak Jackson ñaari mbër yaa nga ca dara xewul ña nga ca saako ya Petit na xeex eh Petit Lo Jackson Jackson raxasoo suuf Petit Lo Jackson ñaari mbër yaa nga ca eh Jackson daw nañ daje de Jackson Petit Lo daan na ko Petit Lo Petit Lo daan na Jackson Petit Lo daan na Jackson jël ba rëy na xool ko Papa Dia Papa Dia songu na ko eh Gakou saak la woddoo de Gakou saak la woddoo eh Gakou do saak la woddoo kot su lay ziar sinon naa xam. borom amitié fitness. waaw gis ñoo ngi nii de. kii nag moo ngi moo moo coté doomu Grand Yoff ci combat bi su ma juumu. si si si maa ko doon doomu Grand Yoff si combat bi bon ak Pokola mi war a bëre moo tax. mi war a bëre mu ji quoi. yaa ko préparé. maa leen préparé ñoom ñëpp. physiquement. physiquement mentalement. Ah, ah, moral est non incha am nañu jaakaar si combat bi bon préparé ni mu war a préparé comme ni mu doon sama xel dal na moom. sa des mooy ñaan boo bee gën a pare. du maye dara de non boo bee gën pare. Pokola. ay te noonu demee waaw waaw bëgg naa leen. Pathé loo Pathé loo yëg jamono. naaj naaj. Pathé daa mel ah. yàgg na. Ah. na. sa dal na. waaw. bu naqaree bëreel ngeen di bëre. loolu dara. ah du noonu. Pokola ngi noonu taxaw. Malick Ndiaye 37 bëgg naa la. Malick naa la. waaw sant yàlla rek. waaw yow li lii la. waaw Lutte TV la ah, wala boog Lutte TV si lamb la boog. non sama télé la sax. mais lépp jàmm gaan. sa xel dal na. sama xel dal na bu yàgg ñu day feete suñu victoire. feete victoire. barke Serigne ni umbale nga gàkku doo de. nga ne. daa mel ni umbale nga gàkku doo de. gàkku de. daa mel ni xeeb nga Balla Gaye ba mu daj maa leen dàq bëre xam-xamu bëre bu yàlla def nii sa xam-xamu bëre bu yàlla def fii dafa ko ci ñoom waaw. bëgg naa la Boucar. préparé deux. ci loolu ne. la wut sama sama doom day moo doon bëre. waaw ma ànd moom. waaw te ko mooñ dese quoi. waaw état yaram day xasan quoi. barke sëñ Bamba day wax ci loo wax ci petit lo ga Tapha Mbeur laa soxla. parce que benn mbër laa bëre mu Tapha Mbeur. waaw. bëgg naa la. waaw si ñu lay fay. yaay kan. waaw. si loo ne. waaw ñu ngi si jàmm. félicitation. waaw merci. noo noo noo bëree combat. waaw dañoo wan rek. waaw li suñu coach si moom lañ bëre rek daan waaw. koo bëgg a bëreel. baari baari na ñoo ñu bëre. baari baari mel. baari baari laa. bu grand yow. yow ñoom laa soxla. à suivre. ziar naa la. Bokar maa ngi lay delloo ziar. mu ni maa waa waaw la yàlla def. temps yii moom géejawaay moom macha allah. macha allah yow kaar sagatu gémmiñ Bokar bu ñu catu. dañoo jëm ay bis. démb dama ne leen woon. démb lancement la woon. tey la film bi. démb la moo ne ko premier lancement. mais Pokola ñeme na waa baax na man dugg ci géew bi nee naa ki muy bëreel. voilà ngi nii sànq nee naa ki muy bëreel sàcc la wéyu la la bandi la muy Gackou 2 fi ne lii muy def nii xamul Gackou 2 bàyyi moom dugg ak moom ci biir géew bi ay moromam jaaroon nan fi champion la neel Gackou 2 yàlla na ko yàlla dimbali te may ko ndam. Boucher waaw Boucher nee naa ko su bàyyee ah. liggéey kenn mënu ko ndax mën naa bëre. tubaarikàlla nit ñi bëgg nañ ko li ci des kon xam na ko mooy fulla ak fayda ak jom liggéey waaw liggéey ndax su ne doole am na su liggéey da koy am xale la xale su liggéey day am doole nit ñi bëgg ko bakante ngay bëreel woo gis naa sa góor sa sant Ndiaye oo ne indi xaar eh, day indi eh, kii bi jokkal ah, Xaadim Ndiaye ma nga ne moo indi jokkal say xam nga day yelwaan jokkal la Xaadim Ndiaye sëriñ la léegi kii lay yelwaan nu mu tudd eh, Kéba Xaadim sëriñ boo xal ko waaye dimbali ma du dara saytaane la ay wax loolu man géejawaay laa dëkk géejawaay laa gëm. man waaw yaw yow géejawaay nga dëkk moom su ne caaro dëkk na yem caaro lu muy wàllu yaani lu muy wàllu yaani tey daal maa ngi ñaan sama yi yal na leen yàlla may ndam ah, gàkko nee leen wëyu la sàcc la bandi la agresseur la te su ci bii géew bi xam loolu ci moom géejawaay ci kaw ci kanam ok géejawaay i loo moom nee na ko concentration nee na ko bul xool fee nekkal ci combat bi nekkal si sa bopp cey bi combat bi c'est le combat des c'est le ndaama bi c'est le combat ndaama Gakou doo ngoog di naan di sangu di bain di def ses préparatifs di waajal combat capital combat bu rëy digganteem ak Pokola waaye nee naa la c'est un très moom Gakou doo moo jóge Guédiawaye tey bi combat eh Gakou ma ngay sato yaram ba tàng na yaram ba tàng na mu ngay def ay gauche droite ma ngay def ay gauche droite eh Gakou Gakou doo ngoog cey lamb cey bi combat cey bi combat Gackou doo ngoog Gackou yaram ba tàng na leen bëre leen Jokal moo féete ndeyjoor Keba Kanté moo ko moom Jokal moo waree Fatick du nuyu waa Fatick yëpp eh Boucher Ketchup moo leen won ginnaaw mais boo seetloo si taay Boucher moo ëpp Jokal eh ñaari mbër yaa nga cële waa Géej waaye nooyee tuñu waa Fatick nooyee tuñu Jokal mépp na waaye demul. Boucher Ketchup ak Jokal Lirou Diane nee na ma Boucher su bàyyee comédie bi mbër la Boucher Ketchup Jokal eh seen combat baa ngi bëgg a yàgg de arbitre baa ngi wax ñoom nee na leen match nul dañoo match nul ñoom ñaar waaw la wax loolu doomu ngi nii ayca arbitre bi laaj na leen ndax pare ñu ne waa arbitre sifflé na arbitre grand Tidiane eh grand combat baa ngi noonu diggante Pokola Balde moo féete ndeyjoor Gakou 2 moo féete càmmoñ ñaari mbër yaa nga ca Pokola Gakou 2 c'est le duel des ndaama des ndaama pétri de talent ay ndaama yu ës yu courageux day ñëw daje mu nekk derbi Pikine Guédiawaye yaaga nekk derbi eh Pokola cokaas na Gackou dóori posté ñaari mbër yaa nga ca Pokola Baldé eh xeex Pokola xeex Gackou doo door na de Gackou doo ak Pokola xeex Gackou eh. doo door door mbaa door mu daanu du am ci combat bi Pokola mbaa door mu daanu du am ci combat bi Pokola Baldé Gackou doo Pokola Gackou 2 Pokola ngeen jàkkaarlool Pokola ak Gackou xeex eh ñaari mbër yi Gackou ngi door mbaa door mu daanu du am door mu daanu mbaa door mu daanu du doo ak Pokola eh xeex door ndombo door na ko ndombo dina ko daan wala rëpp arbitre lu xew Pokola faqat na Pokola Gackou 2 war ndombo faqat mu bañ na ngay raam dina ko daan arbitre lu xew dara xewagul ma ngi koy tar ma ngay bañ arbitre daan na ko wala eh, Pokola Pokola dem na ardo arbitre lu mu wax arbitre eh! Pokola Gackou 2 Pokola gaañu na de Pokola gaañu na day dem ardo de dina naani soow Pokola arbitre nee na dañuy bërewaat arbitre nee na dañuy bërewaat de eh combat bi métti na Gackou de gaañ na Pokola de Pokola dem na Ardo Pokola dem na Ardo lu xew

champion nga champion nga. champion nga wuy ma. maa laal de. la leen man bëre ak yow. waxoo ma lu ñaaw sama nijaay la. Omar sama deret la. lamb la rek. defar waatal rek dégg nga. xeex yàlla ma suturaal rek Modou Mbaye kon ñoom Balla Gaye 2 ne def ko mais sëñ Fallou. lan moo ci des ma si dara yàlla defal sa yoon. sëñ na ma may sama sens. Zos. waaw. Zos waaw. budul Zos. ay ca borom daaru dafa mel ni yaram bi tàng na ñu lay félicité. waaw sant yàlla. lan nga yëg. wallaay sant woon. maanaam wallaay gis nga yàlla baax na. combat bi dafa am barke Seydina Muhammad am ñoo xam ne dañuy taxaw. di wax lu nekk di dégg dama koy takkal sa drapeau nit ñi di ko dagg parce que sëñ Touba. mais yëg-yëg la daf ma daf ma bëgg ba ma xam ko te daf ma wóolu. loolu aussi foog ñu ñi si bàyyi xel. daf ma wóolu te doyloo ma maanaam tey nit mënu la doyloo ba pare ngay yaafoo si ko seetaan loolu mënu nekk waaw man man duma duma duma ñooñu. koo koy borom daaru waay géejawaay te Pikine géejawaay doon bëre mu ne nag géejawaay laa dëkk. waaye tey may ëmb Pokola andi ko parce que daf ma wóolu dénk ma boppam moo tax du ma ko seetaan eh lambuwaay. kon su looy wax ci li décision bi arbitre yi jël. damaa xam yàlla xam na xaw sax. comme sifflet am na wala amul. non dama fee gisul jël la ñu ngi naan ay teg fees naan 4 appe mais man fi ne nii tant que gisuma image mënu ma see sori mais lamb ju yegg ba saako mënoon nañ bàyyi ñu bëre. mais grand bu tol bu toll nii day bu toll nii. ay ca mbokki Sénégal déglu leen le 11 novembre bés bu mag ci arène nationale Mousnakh production la ñu ciy àndal mu ne première édition drapeau Madiop Diop maire bu Grand Yoff Mousnakh ne damay dem jëli serpent noir bu écurie Dóor waar daal koy jox nag ki nga xamante ne ni moom mooy doomu jàmbur écurie Jimbori combat spécial li mu ne damay dem jëli ji amul frein bu Kër Mbay Fall daal koy boole ak Mayakor bu écurie Grand mbooloo drapeau Angèle Fall responsable politique jël dem dina fa jàkkaarloo ak sàqal mbokk yi drapeau Khadim Sam nee ko bu Cambérène ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak sombi drapeau Thomas mbokk yi ak yeneen six combats préliminaires yu neex a neex a neex a neex ci bës bi ñu ànd ci ak Mousnakh production du xam ngeen ko ay ndaanaan kese lañu bu ñu ñëwee rek làmb ji neex